E e c'est pas un match facile parce que c'est un match très technique parce que le niveau compétition yo y yu fi yegg toutes les équipes se valent équipe yëpp euh, elles sont bonnes d'autant plus que joueurs composé équipe c'est des joueurs euh, qui jouent dans des euh, compétitions français anglais équipe championnat anglais le championnat français donc ils jouent en Europe quoi dans la haute compétition donc les professionnels aguerris ce qui est important c'est construire l'esprit d'équipe, la cohésion nous mën automatiser. ça.

ñu xam ne ne du yomb. bloc golo bloc ñu seere leen jëli leen rek ñoom ñu bañ am lu loo xam ne mooy seen individuel. ñu bañ a feeñ ci biir terrain bi. te yaakaar naa ne bu ñu defee bloc comme ni ñu solidarité dañu am ndam dañu am am naa confiance ci ñoom. te ñun lii lañ mu ne ñu boo xam ne dafa war a dafa war ñun foofu lañ mu ne di ñaan nag yàlla yàlla jàmm. tey di wax Aliou di ko félicité di ko wax ne ko. jàpp bañ a bàyyi jàpp rek dañ si am Yaga yaga dinaba. Yaga yaga dinaba. poursuivi par euh, Yusuf Sabali, Jude Bellingham, avec euh, Harry Maguire. Sabali, Sabali vers Elimandiaï, à la lutte avec euh, Declan Rice. Ouverture euh, en face euh, pour. Euh, attention, il y a un joueur sénégalais qui est à terre. Duel entre Saka et euh, Nampalis. Le capitaine de Liverpool qui permet aux Anglais d'être devant et de couvrir le score dans cette rencontre revoit la donc action qui repart. C'est parti, bien tiré, la tête d'Abdou Diallo. Bellingham vers avec oh, Harry Kane, qui met le ballon au fond et marque son tout premier but. Nous avons nak yalla match bi avant mu jeex yalla may ñu ci ndam bu am solo su ko défé ñu mën jubiler comme ñu jubiler la dernière fois. wa avec la pression bien sûr parce que xam nga ñun bëgg nañu Sénégal mu dem ci kaw bëgg nañu Sénégal gagner jël coupe du monde bi donc ñun ñëpp dañ ko vivre avec pression moo tax gis nga xaw nañ découragé un peu mais am nañu quand même que li ñu gis ci football bi fii ak occasion yi ñu gis suñu gënee dëgëraat incha ci deuxième mi-temps bi am yakar yaakaar ne mën remonter deux buts yi ba sax yokk un troisième but et puis am victoire bi quoi. Euh, troisième but bi sur perte de balle la. waaw euh, perte de balle yi nag Angleterre daf ko exploité bu baax dem placé ay contre attaque daal di dugal ay buts yoo xam ni buts yoo xam ni. Euh, ballon récupéré par Rashford Tu va ressortir. le deuxième but est venu comme ça. Price avec euh, Luke Shaw. Shaw avec euh, Jack Grealish. Grealish face. l'Angleterre qui bat le Sénégal sur le score de 3 buts à 0 dans le huitième de finale. La hiérarchie. Mais yàlla mooy maye ndam may na Angleterre ndam ñu ngi koy ñaanal ci li des mais vraiment mënuñu tere wax li nga xam ne moom la ñu gis ci match bi muy njàmbaar boo xam ne Sénégal encore une fois wane na parce que ñëpp xam nañ on a une équipe diminuée yaakaar naa Sadio Mané football mondial bi yëpp donc am nañu deux wala 3 ba 4 titulaires yo xamné tay tey footballuñu mais Sénégal quand même moné nañ jambar supporters yi aussi. On a un patriotisme il faut la saluer tey a nañu mais gis nañu yi amul kenn ku ci dem ñu ngi ñu ngi minute Sénégal égaliser donc moment c'était des moments forts Nous sénégalais yi en l'occurrence dañu montrer notre patriotisme et amour Sénégal Nous avons ko ba mu Nous féliciter et encourager di leen wax ne Inshallah, ci le problème c'est que le Sénégal bon war nañu xoolaat bu baax tey jii nu ñu mën a def ba génn si yenn euh, activités yi booy seet football dafa am lu ko moom du wax ju bëri quoi football dafa nekk affaire boo xam ni technique si bokk rigueur si la bokk ak mun a fexe ba di fexe ba di mun a fàtte yenn couloir yi boo gisee tey couloir yi ñoo ñu xaw a sonal bon Krépin Diatta bon ñu ngi koy félicité mais tey di woon ma chom dugg na fii génn fii quoi. kon bok li may ñaax sénégalais rek football bi dafa am lo xamni tay ji jii ñu ñoo ko war a suñu bop bon deug la xeyna ay mystique fi lañ ko fekk fi lañ ko bàyyi. mais lu ëpp solo moy nekk nañu fexé ba xam football Sénégal ci fan ban fam lay soxé yaakaar naa buñ ko défé rek football bi dina mun gëna avancer a avancé. xaw na métti mais ñepp xamni que les lions ils ont pas démérité ay jàmbaar lañ ku ñëw ba huitième de finale et c'est pas c'est pas évident. kon donc euh, dañu leen di wax euh, gàcc ngalaama les lions de la Teranga di wax di leen wax sa félicitation parce que yegg ba fii sans Sadio Mané c'est pas évident